Maurice ban tonalité la la euh, l' adresse la nation du président de la République jox. waaw euh, booy seet euh, jàngat bi ñu mën a am ci discours président bi dafa mel ne dafa fësal li nga xam ne moo ñu boole en tant que nation maanaam réew moo xam ne dañu nekk ci booy xool suñu devise un peuple un but une fois maanaam benn askan. Euh, euh, benn jëmu ak ngëm donc loolu yëpp dafa nekk lu am solo président dafa mettre l'accent sur la dimension de la nation nation comme communauté imaginée euh, comme li nga xam ne mooy li ñu war a boole euh, boole Sénégal euh, sénégalais yëpp mooy defar suñu réew xool li nga xamante ne mooy intérêt Sénégal te bañ a seet ne kii bokk na fii wala bokk na fële au-delà des partis au-delà de tout ce qui diviser président dafa axer son intervention sur la nation donc booy xool généralement il a fait un discours de quinze minutes donc il est resté un peu ils ont il a respecté son style euh, généralement ci yi booy xool day wax ci wàllu nation bi wax ci wàllu bilan wam ak ci wàllu li mu war a def mais euh, léeg du dugg ci yenn considération euh, politique yi donc daal bu ñu mënee am jàngat bu ñu ci am ñaar la maanaam président dafa bëgg fësal li nga xam ne daal moo ñu boole Euh, au-delà euh, ci li nga xamante ne mun nañu wutale ñu xool lan moo ñu boole lan mooy euh, intérêt réew mi lan moo tax ñu nekk Sénégal te loolu force de défence et de sécurité maanaam l'armée bi daf ci am rôle bu mag bu ci joué notamment boo gisee xeex yi nga xam ne armée bi amal na ko pour ñu am indépendance préserver suñu dignité en tant que nation président bi loolu la wax mais wax na aussi lu bëri ci wàllu jeunesse bi ak jigéen ñi nga xam ne war nañ leen jàppale ci ci wut xëy ci wàllu formation ci wàllu emploi ci wàllu insertion wax na itamit lu bëri ci wàllu infrastructure infrastructure yi mu def ko euh, bu mel euh, ñu mel ni le BRT euh, pont yi ak autopont yi ak lépp li nga xam ne mi ngi koy def ngir jéem a ñoŋal li nga xam ne mooy koom-koomu réew mi boo gisee aussi mën na am beneen jàngat buñ ci mën a am aussi ci diggante ci kaw yëngu-yëngu yi nga xam ne jot na fi am Euh, jot na am ci réew mi c'est que président neen yokk na maanaam ñi nga xam ne mu ñoo war a aar réew mi euh, force de défense et de sécurité yi dafa mel ni daal ci gis-gisam nee na bi comprendre naa seen ay préoccupations maanaam dinañu def mu am koom-koom dinañu jéem a xool nu ñu leen di euh, saafara jafe-jafe yi mais tamit. am na loo xamante ne dañu renforcer force de défense ak sécurité yi ba nga xamante ne dinañu jëmmal li nga xam ne mooy état de droit wante loolu bu ñu ko waxee ba noppi war nañu wax ne aussi ki nga xam ne moo jiite réew mi moom moo war a njëkk a doon kii euh, garantir Euh, le respect de la loi ba nga xam ne à travers l'article 37 de la constitution président bi balaa mu jël fonction dafay waat ne ci kanamu yàlla ak ci kanamu askan wi maa ngi waat ne dinaa dinaa tegu ci yoon dinaa tegu ci yoon teg ñépp ci yoon tegu ci yoon teg ñëpp ci yoon yaakaar naa ne loolu lu am solo la ngir mun a jëmmal lii di état de droit maanaam nguur gu tegu te tënku ci yoon ngir mun a dem ci woo li nga xam ne mooy koom-koomu réew mi kujje gi itamit ñu jox ko akam ak yelleefam bañ leen a jogati lii di euh, jongante politique bi tamit ñu tijj ko bañ ci def ay ndëq sërëxal yoo xamante ne dañu jéem a gàllankoor. ñi nekk ci kujje gi alors Euh, du moment est-ce que influé na ci discours président de la République euh, là vous y apportez une réponse mais en disant que euh, njiitu réew mi moom moo war a nekk ki njëkk a war a respecter loi est-ce que c'est une pierre que vous lancez dans son dans son jardin est-ce que da jàpp ne moom bokk na ci ñu salfaañe état de droit bi. non xam nga bu fekkee dafa am situation conflit mu am ay tensions ki nga xam ne mooy le premier des Sénégalais mënu ci ñàkk am responsabilité. loolu moo tax ma ne boo gisee dama euh, wax nañu li mu def def na lu bëri def na ay réalisation mais itamit foog ñu wax li nga xam ne mooy manquement yi parce que le président il incarne l'unité nationale il défend l'indépendance nationale et la souveraineté nationale donc ak sañ-sañ yi ko constitution bi may dafa bëri moo tax ñu ni moo tax toujours da ngay delluwaat ci constitution bi moo tax ma convoqué l'article 37 mais article 37 bi président bi dafa war a waat ne dafay tegu ci yoon teg ñëpp ci yoon c'est-à-dire que balaa ngay mën a teg nit ñi ci yoon day fekk yow ngay doxal yoon ba pare loolu lu ama ama am solo la te loolu war nañu sàmbonte ak moom parce que état de droit mooy nguur gu tegu te tënku ci yoon. mais sa conviction mooy lan est-ce que nguuru président Macky Sall est-ce que tënku na ci yoon est-ce que tegu na ci yoon est-ce que mu ngi sàmm yoon. waaw mais bu ñu gisee euh, jalgati euh, booy xool euh, boo gisee ni ñu dalee ci kuje gi ci dal boo xamante ne dafa métti ni ñu jëlee doole nguur gi mel ni dañ koy xeexe kuje gi ak yi fi jot am yépp loolu dafay nekkul loo xam ne dañ koy rafetlu ci démocratie parce que président dafa ne woon je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression dama yaakaar ne loolu njuumte la parce que opposition ci am réew dafa am solo parce que bu amul opposition lan lay jur déjà boo nee je vais réduire l'opposition à sa plus simple euh, euh, euh expression dafay dafay loolu déjà mënuloo ko. mais là-bas c'est Macky le président de l'APR qui parlait. Euh, non man man ci man ci sama gis euh, ci sama gis-gis non loolu du slogan politique ci sama gis te même bu doon slogan politique c'est un très mauvais slogan mooy comme nga ñëw ne sama slogan mooy damay suul démocratie te démocratie tax ñu fal la donc je pense que euh, loolu c'est une erreur parce que déjà mënul antu parce que Sénégal fi mu toll kenn mënul réduire l'opposition à sa plus simple expression Léopold Sédar Senghor il a été obligé dans un contexte beaucoup plus favorable d'ouvrir le jeu euh, le président Diouf noonu le président wadd noonu donc la nga xam ne président Senghor réussir ko président Abdou Diouf réussir ko président Wade réussir ko président Macky mënu ko réussir c'est-à-dire réduire écraser opposition bi ba dootul tekki dara te loolu dafay tax non seulement doo ko réussir mais da ngay am en face une opposition radicale parce que da ngay pousse opposants yi ba ñu sës ñoom tamit ñu mujj radicaliser wu léegi ñaari radicalisation yooyu mooy jur tension yi ñu am moo tax ma ne su fekkente ne dañu bëgg réew mi tegu ci yoon ki nga xam ne mooy la première institution du pays nga xam ne balaa muy jël fonction moo tax le serment est très important parce que c'est une formalité substantielle balaa ngay mun a doxal benn sañ-sañ bu la ndeyu saatu réew mi may foog nga waat d'abord ne dama waat naa ci yàlla waat ci askan wi ne dinaa tegu ci yoon teg ñëpp ci